Cheikh Omar Talla waxee léegi une presqu'île boo xam ne mënoo daw cinq kilomètres yoo xam ne jotoo jotoo géej mais loolu nan la ñu mën a taxawee bay bay bay bay bay bay am aveu bii nga xam ne moom la sama xarit bi avoué aveu d'échec parce que il dit que ni ku ñëw aussi tu vas échouer moom nañu xam ñoom ñoom li ñuy def waaye ñun bis bu ñu ñëwee bis bu ñu yàlla dénkee nguur gi incha allah lu loolu lu yomb lay lu yomb lay doon parce que sept cent cinquante milliards su fekkante ni am nañ suñu disponibilité. cette promesse là gëm sa bopp def ko yéen Pastef def ko keneen loolu la politique yëpp di def en fait monsieur Sare ñoom loolu la ñuy def avant ñuy affaire relogement yi. le président Macky euh, mais loolu la defoon comme promesse avant muy jot le pouvoir. gis nga nag à la fois un discours et un parcours. ku ko seet lu woon démb ak bërki démb xam ni discours am boobu. mu doon mu ñu doon mu ñu jaay en 2012 du ci respecté dara pendant huit ans il a été avec Ablaye Wade n'est-ce pas avec pendant huit ans kenn musu koo dégg mu am xarma yàlla ak Ablaye Wade il a suffi que ne ko delloo ma li nga ma jox pour ñu commencer gis kon euh, ñu commencer gis ne nit ki euh, nit ku mën a kuy kuy bañ la waaye pendant huit ans kenn musu koo dégg mu am xarma yàlla ak Ablaye Wade kooku donc intérêt personnel am rek moo mën a tax mu jóg ñaareel bi. koo xam ne en 2000 les gens disaient qu'il avait des problèmes de location huit ans après il vient faire une déclaration de plus de six sept huit milliards waroon na ñoo xam ne bu ko denkee suñu alal du ko du ko ñoŋal loolu mooy problème mu seen loolu nag moo tax population sénégalaise yi war a réclamer des audits un peu partout ils ont échoué partout du rek ci inondation yi bërki démb laa dégg ne xaw ma am na benn marché wu un milliard huit cent bu ñu jox xaw ma ban entreprise mu waroon a euh, euh, joxe une une trentaine de motopompes. Mhm. ñaar la fa yóbbu. benn ba benn ba yàq. finalement mhm. pompiers yi lañ ko dénk mais lu tax dénkuñu woon pompiers yëf yi dès le départ puisque pompiers yi lañ ko mujj dénk gis nga ñii. dañoo respecté wul Sénégalais yi. alors il faut yi nag jóg takku surtout commencé ko nag ci élection locale yi. mbaaw ga ma dëkk na le boo fa demee amul benn quartier boo xam ne nit ñu sonnuñu nit ñaa ngi génn seen kër boo demee fu mel ni tool jazz kër mbay kër mbay faal wala nga dem fu mel ni petit mbaaw rek ci ginnaaw foofu rek ci ginnaaw mais ñaa ngi génn seen kër yi. alors c'est clair c'est monsieur Sarré alors monsieur Cissé bu ñu ñëwee ci li ñu doon wax sànq jëm ci peut-être sport yi nga xamante ne euh, def na ko ay affiche plutôt euh, publicité pour inciter ndaw yi pour ñu dem inscrire sur les électorales ñu tere ko ko te ñi seen xam-xam màcc. ci wàllu code électoral li ñu xam le mooy amul benn disposition dans le code électoral buy interdire loolu un vide juridique boo xamante ne permettre na ko moom mu bokk ci parti wala mu jiite ci parti mu def affice bu mel noonu euh, euh, yéen ñu maanaam buñ bu ma nee yéen euh, pouvoir bi convoqué ko le ministre de l'intérieur tere ko ko ba pare dippee ko ordre trouble à l'ordre public nan la ñu mën a comprendre loolu waaw da nga may may ma def ñaari précision d'abord benn bi pour prof parce que dafa wax ba cité Fatou Tambedi moo wax ko ni Fatou Tambedi ministre délégué la woon elle pas elle n'avait pas un portefeuille ministériel avec un budget elle dépendait de son ministre de tutelle et c'est le DAGE qui gérait Diène Farba voilà mm il faut il faut qu'on remette les choses à l'ordre deuxième bi sama mbokk euh, euh, euh, kii Pastef bi ñoom benn programme la ñu am Macky Sall seen discours yëpp. c'est le problème du Sénégal non non c'est le principal problème du Sénégal. il est omnipotent omniscient. voilà quelqu'un boo xam ne nit ñi yàlla lañ ko jàppee. donc forcément moom mooy suñu problème c'est le principal problème. yow yow doo problème bu Sénégal parce que je crois que amuloo dara loo xam ne créer quand tu parlais dama la déglu. waaw ñu déglu ko monsieur Sare qu'il termine alors euh, monsieur Cissé allez-y mooy buy nit di wax nga tamit nga bañ ko dagg même bu la naqaree bu defee pincement de cœur tamit nga muñ ko parce que booy wax daf may naqari mais damay noppi. bu la naqaree da lu neex sénégalais naqari na la du ma la dog <laughs> du ma la dog. allez-y monsieur le Seye amal respect ci man ak téléspectateurs non non ça ça suffit c'est bon j'ai j'ai entendu allez-y. bon ñoom benn programme la ñu am Macky Sall kenn du la wax la duñ la wax mukk buñ fi toogee lan la ñuy def. Mhm. léegi ma ñëw ci affaire affiche yi xam nga c'est la première fois au Sénégal. depuis que ñooy def élection un parti ou un mouvement def affichage def ci turam ce qui est interdit par la loi. Et les affichages du président Macky Sall. qui est également chef de parti. non eh, xaar ma déglu déglu ma Macky lu muy affiché mooy li muy def ci réew mi c'est le président de la République bu amee ay gan wala muy def lenn day affiché mais dama la bëgg a wax ni loi électorale. dañ ko war a respecter parce que booy wax leen na nga dem ci loi électorale bi. Mhm. kenn musul afficher en période d'inscription ak yooyu def ci sa logo. ça n'existe pas c'est c'était euh, de la c'est de la propagande pure et dure et c'est interdit par le code électoral.

parce que ñoom ci seen bopp ils organisent des caravanes ak seen ay ay seen ay photo di wax nit ñi dem ngeen inscrire. li mooy wane mais loolu mooy wane mais amul respect ci mais mais moom. amul respect ci ñu ñuy déglu parce que bu may wax muy may dagg di kii non attaqué wu ma la. non non non attaqué wu ma la mais dama def wax nga fi affaire yar wax nga fi ay non non non dama def un constat da ngay wax ñëpp dañoo noppi déglu la voilà mm-hmm. bu may wax tamit da nga war a noppi mais soo waxee lu ahurissant nit ñi coupé la ce que tu dis là est ahurissant bu la méttee nga bës sa xol quand tu dis quelque chose d'ahurissant mais nit ñi dañ lay arrêté nag le débat n'est pas personnel s'il vous plaît monsieur Sarré monsieur Cissé monsieur Sarré alors vous vous deux répondez à la question s'il vous plaît le débat n'est pas personnel ah période bi ñu nekk la loi électorale ne permet pas la propagande propagande ñu ngi ko bàyyi ñu ngi ko d'accord accepté bu ñu ubbee euh, euh, nakul dati la campagne électorale mais jusqu'à la veille de la campagne électorale propagande amul moi je faisais partie comme seen aljuma sow ci euh, commission bi dégg nga donc wax fii yenn yoo xam ni xamoo ko fekkee woo ba ñuy négocier dafay métti moi j'y étais et je connais tout ce qui s'était passé là-bas parce que ñoo doon toog di wax. mais mais loolu est-ce que dañ ko wax parce que euh, li ngay wax ni la société civile bi nga xam ne ñoo nekkoon ci ko boobu ngay wax. li ñu xamle dafa leer une société politique. non. <laughs> ah mais les gens dañuy jël teg fële loi bi parce que xam nga Sénégal lu fi gën a bëri. les gens la société civile bi joxe bi joxe bi joxe loi bi weesu ba joxe article 289 ci alinéa bi bi c'est une république qui a sa loi fondamentale qui a ses euh, loi ordinaire ordinaires yëpp c'est normé c'est une république normée c'est pas quelque chose bu ñuy def nii mhm. en période euh, euh, d' en période période bii ñu nekk ban parti nga gis mu def affichage à part gëm sa bopp ba pare def ci sa logo xam nga bu fekkoonte ni dafa def inscrivez-vous sur les listes électorales sans pour autant mu def ci gëm sa bopp kenn mënu ko jël comme propagande. alors c'est clair c'est bon. ah, ah alors alors <laughs> euh, euh, ñu ngi wax affice yi nga xamante ne def ngeen ko mais affiche yoo xamante ne euh, bu yamoon rek peut-être ci dem leen ngeen inscrire wala logo boo xamante ne buñ ci gisee gëm sa bopp mais photo ki nga xam ne moo jiite mouvement bi photo bu fës lool boo xamante ne moom également boo xoolee pour dem inscrire da nga koy bàyyi xel est-ce que loolu jegewul propagande. ana faral di dégg. mag ñi ak kilifa yi di wax ci nasaraan l'incompréhension n'est autre qu'un signe d'insuffisance intellectuelle foog Sénégal ñu joxante cër dadi lu am solo bi convocation bi di ñëw comme li ma wax sànq yàlla dafa dogaloon ñu ngi doon préparer parce que moto pompe yi bu ñu ko jëndee ba pare jëndit carburant bu doy dañ doon préparer pour le lundi matin